Euh, moom ñu ngi koy nuyu bu baax et puis on n'oublie pas euh, suñu beneen xarit bu nekk euh, Maroc mu ngi tudd Bijou Diallo voilà Bijou jàllo et n'a pas l'habitude de se réveiller les matins ah. mais léegi fajar rek la yeewu pour seetaan yeewu leen bi ñu ngi ko ci gërëm bu baax 11h mooy doog a jot mat leen demee rek ñu ñëw ci bëñ yi comme ça suñu gars yi mën cee profité Ousmane album bi boobu ba tey bi nga ko annoncé ba tey génn lu tax. Euh, xam nga euh, album nag bon mën nga mën nga ko annoncé mais mën nga ko téye ba yaakaar ni moment bi ci la moo gën a favorable génne album. Mm. nga nga génne ko mm. parce que Sénégal rek laa gis ñuy ñuy ñuy ñuy tegale album yi mu pare mu ñàkk pare chaque un an ou chaque deux ans nga génne produit. Mm. donc bon doo am temps def promo. mu ci waar bi voilà c'est ça quoi. man 2010 laa génne l'avenir. donc ça fait léegi ay trois ans peut-être. Mm-hmm. génne album. Mm-hmm. te pratiquement booy xool sax pour. Euh, pour pour pour euh, génne albumum xanaa da nga koy nii rek waaye. wallaay wallaay doy na mais mais tamit li ngay na Ousmane a ngi a ngi ci ngénte surtout ak mariage yi. réception tout ça parce dafa am ay da ngay gis ay jigéen ñoo xam. Ousmane mooy mooy mooy artiste mooy animateur réception yi ak. non da ngay gis da ngay gis jigéen ñoo ah? xam ne day mm-hmm. day ñëw sa soirée. Mm-hmm. bëgg la trop di la wooye papa. Mm-hmm. ni la papa damay ñaan bés buñ may takk. dama bëgg yow nga teew. te naa am na ku naan la sax boo teewul kenn du ma maye. ma bëgg nga maye ma sama anniversaire dama bëgg nga animé ko. <laughs> sama sama réception donc euh, mu bëri na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko dañ ko doon ñaan ma yàlla da koy def. <laughs> donc euh, par sa sa album bi est-ce que sa doom dana euh, ko ci trouver. Ah, si ak moom kañ lay génnee album moom bon moom dafa dafa toll ci phase boo xam ne nag. day door a ñëw. Mhm. te comme musique yombul. Mhm. dama ko bëgg tëj tuuti. am yu ma ko jàngal non non non dama koy jàngal ah, parce que bon xëy na peut-être euh, xam nañ ni il bon nit ñi dañ ko am ne macha allah ñu ngi koy apprécier mais nag dafa war a jàng en même temps. Mhm. bañ a yàkkamti aussi. parce que yàkkamti aussi. Euh, voilà mhm. c'est ça dañuy neexum gont xam fa ngay fanaanee ko gën. du dëgg <laughs> bu ko defee comme léegi jël naa ko mi ngi Ousmane euh, mooy def première partie. ana Keba moom léegi dafa beru. ah dafa beru léegi waaw léegi moom mi ngi ak Keps Band. ah mooy yow mooy mooy li ngeen di ngun ngunee cool yi rek yëpp. moom ngeen di ngun ngunee xam na. ça quoi. voilà euh, on dit. voilà fly to fly voilà c'est ça. voilà donc moom léegi moom mooy def les premières parties. d'accord bon dina ko permettre muy mën a jàng di xam. Uh-huh. Euh, euh, fi ñuy duggee fi ñuy génnee. Uh-huh. xam gaam xam cycle xam mesure xam lépp. Uh-huh. donc loolu il lui faut du temps. mais nag bu ñu bëggee kut ko kut rek non non Mandiaye Seck doomu Ousmane Seck i il chante bien non macha dañ koy teg loo xam du ko attan. te dafa war a jàng musique dafa am logique donc xam naa ni jombul sax balaa moom li gën a retardé un peu sama produit sax mhm. bëgg naa mu am ci benn morceau bon wala boo xam ni wala ñu def benn morceau euh, boo dañ koy duo bon ñu pourquoi pas mën na nekk été ren mën na nekk été déwén on sait jamais yàlla rek moo xam mais on verra avec le temps dinañu mhm. permettre ñu di ko ma di ko nandal yenn yi nga xam ne ci li ma xaw a jot a jàng man uh-huh. ah ma di ko ci jàngal moom it uh-huh. parce que moom dama ay sëriñam voilà mais mais mais léegi nii bu ñuy jeexal dina am lu ngeen ñuy may yéen ñaar ah, ah, ah pour jeexal pour mm. jeexal pour jeexal yeewu leen bi mm. et puis nga nuyul ñu bu baax nag euh, Thione Seck Thione Ballago ah, Seck suñu papa la ñu ngi koy nii lu euh, bari suñu xarit la moom itam yàlla baaxal ko waaye yow fa nga ne woon moom lu tax nga jóge fa. xanaa. ba mu fekk la moom dara fayul. wala yaa dem rek. papa ñu ngi lay ah. nuyu bu baax ah ca fekk. moom ah. itam euh, moom itam ku ku jàpp la en tout cas yàlla na jàmm rek di. amiin amiin ah, ñu yàlla nañu yàlla bàyyeeg ñi gën ci ñun. amiin yàlla nañu yàlla bàyyeeg ñi gën ci ñun. surtout yàlla bàyyi ñu ak ñoom lépp di gën di baax et comme on dit euh, fii ci télévision Futur Média comme dañu ne mooy. miroir du Sénégal ah. ñun ci jàmm rek la ñuy dox mm-hmm. dañuy bëgg jàmm yàgg waaye mm-hmm. ñu ak ñi gën ci ñun encore ma waxaat ko yéenante jàmm surtout waaw ah, loolu defe naa am na solo mm-hmm. te xam ni ku ne euh, euh, li la suñu borom tracé ala kulli al di nga ci jaar bu mu mat sëkk man dama ci mën dara yow doo ci mën dara kenn moo tax jarul yàkkamti jarul yàkkamti jarul njëkkante jarul def leen lu ñaaw yéenante jàmm nag surtout c'est très important boobu xam nga yenn saa yi ñu ne euh, Euh, maam Abdou Aziz si waxoon na wala góor gi waxoon na mm. wala euh, diw waxoon na mais d'habitude wax yu rafet yooyu nga xam ni euh, ñu baax ñee ko fi waxoon ñaare ñun fii Sénégal du ñu koy appliquer mm-hmm. ah, ay yal na nañu tàppe xol yi mm-hmm. ay ak yeneen wax yu sell yoo xamante ñi dañu koy wax ñu koy jël jéggalante tey jëlale d'habitude fii Sénégal duñu ko duñu ko appliquer mais il est temps nag ñu appliquer xeetu kàddu yooyu tàppewaat xol yi yéenante jàmm loolu defe naa am na solo Ousmane en tout cas gërëm tam waa people sénégal point com site internet boobu ak ak man suñu xarit Papa Sane Seck Papa Sane Seck sama ah, euh, doomu baay euh, euh, baayu Binta Vassor moom tam ñu koy gërëm bu baax moom it mm. suñu xarit la profité ci souhaiter un bon anniversaire à bébé Awa bu Laari Laari sama doom la mi nekk ci Kouthia ah donc xale bi anniversaire sama sët la mm-hmm. Mm-hmm. ak Fatou Babi Fatou Babi tam ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire Ousmane ñu ngi lay gërëm yeewu leen bi mm. dañuy béggalante vite fait waaye xam naa daañu yaakaarloo ci yeneen jotaay pelloo ngi fi ah tubaarkàlla night show mu ngi fi. ak yeneen yu baax yoo xam ne Pello night show. voilà ngi fi wala night show. yaay la ñëw ci waaw intéressant yooyu yëpp ñu ngi parce que yow macha allah ba ma la xamee ba léegi nag euh, mosuloo def lu soof nag. déedéet te te yàlla na jëm kanam. parce que xam naa ne ci yaa bokk di dee macha allah catuma la nag. waaye <laughs> li ma gis laay wax. wax ba wax baax ko dara. wax ah? baax kii ñooy renfort am. Ah. ñooy renfort am. dëgg la comme yeneen renfort comme comme comme yeneen renfort Eh, moom lu ko wokk yaakaar naa da leen xuri et eh, le 23 mai dama bu drapeau ma tuddee le 23 mai maa ngi gis donc incha allah bon ci Iba Mar bon son bi son bi moo ma ko tuddee def promo bi yéen a ngi koy def ah, mais ma ñëw ba ci plateau bi rek ma invité aussi sama grand Youssou parce que ma aussi dina wax parce que voilà ba léegi laajagu leen ko dara fekk fi ay bàjjaram man mënuma wax ndax ah. paa moom bu toogee ah. jox la ma Penda Seck man ma Penda Seck la may jox naa xam nga papa bu toogee moom ah. ah en même temps papaam. Euh. Ah, ah, waaw daa faa ma Penda ah, apparemment. dama ko bëgg sama xol. kii du tëb doom ju bët. Mm. ma Penda Seck mu ngi préparé album d' ailleurs ah. oui mu ngi préparé album. si si si mi ngi préparé dégg naa sax ci woy yi sama tur a ngi ci. Mm. dégg naa mën naa nekk yow dara jomb la. dinaa sonal nit ñi yow dara jomb la. ma Penda Seck mu ngi studio de. <laughs> Amadou ne ko dara jomb la waaw yow war yow sa sa tur yi war naa mën a jëm fu ne nag. dëgg yàlla et puis et puis Ousmane dinañ leen invité tam ñu ngi pare ñaari événement mm. euh, semaine bi moom dañu dañu fas yéene waxtaanee suñu euh, suñu suñu euh, nu ko tubaab tuddee bouchée double. le 6 juin. ak le ak le 7 juin le 6. Mm. Fatou Guewel sa xarit nga àndoon ak moom. ah d'accord woyandoo ak moom. ok defandoo ak groupe soppandoo le 7. Ah, ah Assane Ndiaye donc ñaari guddi yoo xam ni. ah yu euh, terrible man sax damaa xaw tiit. waaye yàlla nañu yàlla lafal cat ci bis yooyu. amiin ah Fatou Guewel le 6 juin ca Grand Théâtre nga xam ni euh, ñoom Ndeye Mati euh, dëgg-dëgg ñu baax ñu nekk France ñu ngi pare di ñëw. nga dem fu mel ni Amérique ñoom Ajaratu Amidia ñoom tam ñu ngi préparé di ñëw waa Atlanta yi ñoom Maam Soxna Lo ah le 6 juin euh, man fête nationale laa ko tuddee. Ah, waaye ñaari fête nationale lay doon. le 6 et le 7 juin incha allah. et buñ ko jógee nag xam naa nag Ousmane dëgg dëgg sa guddi. anniversaire bi daaw euh, ren nag euh, di nga ci ñëwaat. dinaa ci ñëwaat parce que anniversaire moom incha allah. Mhm. def naa deux éditions. Mhm. première édition bi. Mhm. waa TFM laa ci laa ci àndal. waaye ku ñu woowoo ñu riis nag wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla euh, la ca war lépp. Mm. defoon nañu ko waaw wax dëgg yàlla. mu nekk réussite boo xam ni. am ma bëggee ma defal la protocole ah. d'accord léegi nga signé foo mënti woote Grand Théâtre. Ah. bu la neexee woote bersi fu ne TFM ànd ci ak yi waaye. mais mais TFM ku ànd ak ñoom da nga am fit. ah yaa wax li am fit waaw ah, da ngay am fit parce que maa ngi rappelé sama première édition bi. waaw signé maa ngi toog ak maa ngi léegi ci suuf waaw kay. ne ko grand dama bëgg dem Sorano dalaa bëgg a jëm li ma jaaxal mille et quelques la mënu ma Ousmane. Uh-huh. yow tu peux remplir plus que le Sorano. Eh, eh, eh, ren ñu ngi may soufflé ni grand théâtre ngay woote incha allah fileeg ay euh, bis dinañu am date bi te di nga ci ànd ak télévision Futur Média. en ah. tout cas en tout cas. Pa Assane Pa Assane Seck le manager mi ngi dégg. Ah, incha allah te xam naa ni euh, Sénégal ah, people sénégal point com. Uh-huh. ku ci dugg di nga am lu leer nañ. allah incha allah donc xam naa lépp loo xam ni euh, information la pour Ousmane. boo uh-huh. foofu di nga ko parce que man. artiste laa rek waaye uh-huh. ñemewu maa wax uh-huh. ci yu bari parce que comme ku am kudd doo lakk uh-huh. am na ñu may waxal am na ñu may lijjantil am na ñu may defal kon ñu bàyyi koog ñooñu kon ah. euh, fiston ah. kaay taxaw yu dinaa la lëkkal lëkkal yow xam naa la fekk su sa doom la waaw suñu doom la waaw suñu doom la ayta <laughs> léegi kon mm. euh, Mandiaye day tourné gars yi gis ko comme ça ngeen woyal ñu mm. euh, ñu mën a euh, bég mën a kontaan gërëm ñëpp encore ah, ak ni ngeen mais nag ngay dem ki koy ki koy ki koy gitaaral muy way noonu ah, Assane Aydara la tudd Assane Aydara waaw sérif la waaw soli si Ousband ah. macha allah di pël pël bu ngéwél la nag mais nag jabaru géwél la am sëy ni maa ngi koy nuyu jabaru la am donc moom mooy moom laa ko dèjà nee naa ko sa doom la <laughs> euh, euh, Abma bon ah. na nga koy jël léeg-léeg di ko xamal yenn plan yi nag voilà c'est ça voilà merci merci en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp ah, euh, ñu ñëwaat ci trucs yi ak astuces yi grâce à toi ku ci yeewu da ngay am bien-être ah, Mado Diaw Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax demain on te retrouve Paul kontaan nañu on retrouve les dates demain bon plan ak bon coup yi ma biche ma fille demain on te retrouve voilà <laughs> merci à toute l'équipe équipe de production dirigée par tonton Mac mention spéciale à notre producteur exécutif jàpp euh, yoon nga xam ne yenn saa yi sax ñu a nelaw tuuti mu ñëw yooxu xuloo ak ñun Bouba Ndour merci d'être là tous les matins defe naa euh, euh, di nga xeeb sax li nga nekkee ak ñun ci yeewu leen bi mais ñun xeebuñu ko lu bëri lu ngeen di gis ñu koy def fii dafa am équipe bu mag bu nekk ci ginnaaw di ko liggéey d'habitude xeetu gërëm yi bu émission defee un an la ñu koy def waaye ñun defaguñu ñetti weer di ko def dafa fekk ni dañu gis liggéey bu am solo bu ñu ci ginnaaw di def ñoom Khadim xale euh, mm. yi ñoom ñoom Mass Yao Gervais il n'est pas venu ce matin ñoom ah, petit merci à tous ah mm. yow fajar bi métti na Yacine mais bon gis nañu ni ngeen di xeexee pour euh, suñu ay programme jëm ci kanam merci à tous ñun ngeen di gis peut-être ñuy wax ak jaay taar mais c'est une grande équipe qui est derrière Mariem tout le monde merci à tous euh, di gërëm tam Mamadou Ibra Kane il était là ce matin mm. on a beaucoup parlé ñu ngi ndokkeel suñu xarit yooyu Bédik yi waa Bédik ah, ah voilà Bédik yi ñu ngi leen di jégaluwaat encore te di leen gërëm bu baax ci ni ngeen ànd ak télévision Futur Média miroir du Sénégal y a télé et télé voilà c'est ça ayca kon euh, Mandiaye sama doom ak Ousmane sekk ma bàyyi leen ngeen jàkkaarloo waxante lu baax ñu bégal euh, suñu xarit yi nga xam ne ñooy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média ndeysaan fër yoo leey gañ bamba ma xuraji biram faat ma daw raas mu yendoo njoojam mm. biram yendu fa yendoo naan sek mm. wiye dongi ñuti wiyaama suusata mm. wiyendo ngi ñuti ku gis ñu ma yendo daw dëgg la amadou ma xura jabalaj ñaat no ma nga guy texe mooy bàyyi Fatma yaay Serigne Cheikh Gaynde Fatma gàncel ma xureja mu xureja biram Fatma wiye ndongi ma suusata mm. wiyee donge ñote ku gis ñu ma yeen doo samba sax bàcc la ñu koy woowe mm. far yu ñu alo ji naaguy ah, ah, ah, waaw waaw dégg nga loolu tout le monde ah. leen ci daal may xool. daali ma daali ma daali daali ma daali ma laa ilaaha illallaah ewe fari eh. Farie. Farie. yee lat joora nga caar kulli joora nga dee ndóob mi des ci ngay doo ñaawee ndeysaan ewa yee gaynde Fatma dem na noonu biram Fatma ñaari yoon matuma xureeja biram Fatma doo ñaawee ndeysaan yée bu jëf ji bëree cheikh bu wax ji neewee cheikh la gaynde Fatma ñaari yoon doo ñaawee samba binta maam jëy joor lu ñu ko def